Thank you. a gën ci kaw suuf amul Abdou ba may yow booba yaakaar naa ne buñ matee ñeent fukki nit ci laaj am wala te booba ba léegi maa ngi topp ci sa gannaaw amul bés bu la desale gannaaw kenn mënu maa jënd ci yow man dey mbeng nag li ñuy wax ne benn doom bu nekkee ci néeg rakk amul mag mun ta toog moo waral lépp lu Abdou def suñ ma gis ci première bi xam nañ ne am na ci leneen lu bari waaye ardu jëndeewu ma ko leen ci àddina ndax ardu ku ko jëndee dara mel na ni amoo fula. mbokk yi daa am délégation bu jógee Toubacouta ñëw fekkee si suñu mitin ngeen ñëpp jógee leen jóg leen ngeen teertu leen. joxaat si Ndiaye day mel. bu continuer li mu doon wax. bu mel nii waxuñ waa Kaarang rek de ndax meeting bi waa Toubacouta bàyyeekoo Toubacouta Kër Laayim Soose bàyyeekoo Kër Laayim Soose ñun waa Kaarang kon lu ñuy xaar ndax wolof Njaay nee ganaar du topp taxankat. ci la ganaar di topp ndax taxan boo ko toppee li Abdou Diallo bëgg am na candidat bu ko bëgg ca Toubacouta Toubacouta bàyyeekoo Toubacouta ñëw fii ci Kaarang ndéggame Abdou Diallo kon ñun waa Kaarang lu ñuy xaar waruñoo xaar dara Abdou ñu ngi ci sa tey ñu ngi ci sa ëllëg ak lépp loo xam ne rek lu ñu mën a topp ba ñëw ci Abdou rek ñun bëgg nañ loolu. man na amul dara lu ma jaaxal waaye xam naa ne jigéen ñi ñu am Pastef lañ lépp luñ ne nii la rek lii luñ jox gannaaw it jox nañ ko gannaaw maa ngi ñaan ci yàlla Abdou Diallo lii ñu sémbul yal na ko yàlla soppal ci barke Salatu Fatiha barke Makka ak Medina. li ngeen ko téye nii nii la àdduna lay wax ñu ngi sa ginnaaw tey ñu ngi sa ginnaaw suba délégation bi du biis dañoo bëri dégg ne tey ngeen ubbi sa meeting rek ma ne xa leen nañ dem jàppale Abdou ñu nit waa Kaarang ba suñuy def suñu meeting ñu oo leen jërëjëf nag Junior Comédien kono mani nene tan nata yen nene daroni ɗum ko wolle aɓe wolle woyatagol man tara toñaɓo la faniya kense saya harga karan nan nomaga karan kaɗol bula harga karan nan nomaga karan kaɗol bula karan kaɗol man ferre kan nenene jamano karan woɗetamo konna kalma bula bu jallo noon kalma ala en naso kayrol akana bindinde alama akela hal faade ɓe kam mum duwa alama ala e wo habi jallo ɗi wo gañetanumo minna kay wo ɗum kala mbe telele taj aani ala sotaɗumaɗen Ami sokowo, ami yo lesbian ta. Ojo moje ko Yalla ya wax. Amiin amiin Yalla ya wax. Barka Maulana barka Mama. ala baye abdoy délégué de quartier Ibrahima Diouf ñu gën ko xamee ci Mbassa ginnaaw loolu bépp kilifa boo xamante ne nii mu ngi yeewoo Escale moo xam góor la mbol la jigéen la maa ngi lay yóbbante sama luyo bu loolu weesoo képp ki nga xamante ne tey jóge na ci yeneen quartier kaara ngi ñëw wuy si suñ ndaje bi tey ñu ngi lay sant dina la gërëm ñuy beral loxo ci nuyoo bi ñi nga xamante ne dañoo jóge ci dëkk yu mel ni Toubacouta Jelmo euh, Toubacouta Jelmo Kër Laayen Socé ak ñi nga xamante ne ñu ngi jógee Karang Socé ñu gën ko xamee ci Karang Ba donc bu loolu weesoo li ñu dajale tey mooy waxtaane élection yi ñu jëm élection yi ñu jëm nag dañoo am tur dañu ko tuddee ci tubaab élection législative lan mooy élection législative mooy élection yoo xamante ne dañu war a ay ndaw yu leen di toogal fee ci kuréel bu ñu tuddee assemblée nationale ñu tuddee ko ci wolof pencub ndaw réew mi assemblée boobu ñan ñoo fa war a dem ay nit la yoo xamante ne dañ war a xam jafe-jafe askan bi ay nit la yoo xamante ne mu tuuti mbala mu néew dañoo war a jàng mën a ràññee li nga xamante ne moom la ñuy bind ci kayit yi man nag dafa am fu ma yeewoo guddi ak bëccëg ñu tuddee ko Karang tey am ñoo xamante ne dañoo jógee feneen ñëw dooleel si muy ñan muy waa Kër Laayeen Soose muy waa Toubacouta muy waa Jelmo ak dëkk yi nga xamante ne ñooñu wër liggéey bii ñu nekk nag liggéey bii ñu nekk nag ñu ci ànd ak maire ñu tuddee ko Petit Gueye Petit dama bëgg ngeen may ko loxo parce mu ngi def liggéey bu rafet Sokone ba tax na population bu Sokone dañ ko doyloo jël mairie bi dënk ko ko jamono bi muy xëccoo ñun tamit ñu ngi doon xëccoo yàlla def na li muy def may ko ndam ñun mayu ñu ndam loolu moo gën si ñun waaye tey ku gis suñu ndaje tey bi war na war a war na mën a wax alhamdulilahi rabil alamina parce que liñ doon wut di ko wër guddi ak bëccëg yaakaar naa ne mu ngi suñu kanam ñu koy gis muy nit yi nga xamante ne ñu ngi toog fii ma leen di sant di leen gërëm coalition boobu ma tudd ñu ngi ko tuddee Sénégal day dem coalition bi kan moo ko mooy kee ngeen gis ci photo bi ñu tuddee ko docteur Cheikh Tidiane Gadio docteur Cheikh Tidiane Gadio nag altine bii ñu jub dafa war a ñëw Kaarang gi waxtaan ak askanu Kaarang xam lan mooy seen jafe-jafe ngir buñ demee assemblée nationale taxaw ci li nga xamante ne mooy jafe-jafe département bu Foundiougne ak Sénégal Kaarang nag tey ku ko tudd tudd tudd jafe-jafe ndox ku tudd Kaarang tey tudd jafe-jafe courant ku tudd Kaarang tey tudd jafe-jafe école yi ku tudd Karantay tudd jafe-jafe yoon yu baaxul ku tudd Karantay tudd problème mu financement ku tudd Karantay tudd problème mu daara yi ku tudd Karantay tudd problème mu marché jafe-jafe yi yëpp jafe-jafe yi yëpp moom moo tax ñu ne dañuy jóg taxaw temm ngir jàkkaarloo ak askan bi waxtaan ak moom si yi nga xamante ne nii mooy jafe-jafe yooyu jéem a xool élection yi jëm naka ngeen ñuy fale ba ñu nekkal leen fee ci assemblée nationale. assemblée nationale mooy lan dafa mel ni mairie Karang assemblée nationale dafa mel ni mairie Karang ku ci nekk xam nga lépp lu ñuy dogal ci biir dëkk bi tey mairie bee lañ koy dogalee. assemblée nationale nag boo ko jëlee dafa mel ni jafe-jafe yi nekk ci biir Sénégal yëpp ak sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi bitim foofu noonu la ñuy saafara li nga xamante ne mooy seen jafe-jafe. lan mooy assemblée nationale mooy bërëb bi nga xamante ne ni lii nga xamante ne mooy alalu réew mi at bu ne député yi dañuy daje ñu ne ren nangamu milliards la ñuy dugal ci réewu senegal ci biir milliards yooyu noonu ci biir milliards yooyu noonu ñu ne nangamu million moom la jagleel kaarang ñu dégluwante tuuti ñu dégluwante tuuti. dama ne li ñuy def nii dafa am solo ñu dégluwante ñu baññoo nax assemblée nationale dama ne mooy bërëb bi nga xamante ne lépp loo xamante ne koom la ci réew mi maanaam muy alal foofu lañ koy séddale ko amul ku la fa nekkal na kenn du la cër parce que kenn du la jooyal Kaarëng nag bëgg am ki nga xamante ne moo koy jooyal département Foundiougne bëgg am ki nga xamante ne moo koy jooyal département Foundiougne nag man mii wax ak Abdou Diallo seen doom seen rakk seen jarbaat seen sët ma nekk mag ci yenn xale yi man maa leen loxo yàlla def na kaarang tey ginnaaw mën ak Balla Diop ak Noa Diouf amul beneen candidat amul beneen candidat ñii wër dafa am ku ñuy wuutal te waa Toubacouta wax nañ ko bu fekkente ne Tandey Mbengue wax na ko bu fekkente ne waa Toubacouta ñooy jóge fële ñëw kaarang pour dooleel si ñu ki fa nekk gënalu leen te ki fa nekk lañu nekk fii bëgg mu jàppale leen te kooku damay fàttali muy Pape Ndiango dañuy tudd turam garage bu Kaarang la nekk dëpp ñaata at ñaata ak ginnaaw garage fan ci Kaarang la Pape Ndiango dugal loxoom jafe-jafe yàgg na Kaarang Pape dugalu ci loxoom daju ne moom mooy gaynde ñoom baatoo waxoon naa ne gaynde bi màgget na xale yi jóg nañ te incha allah li ñu fas yéene xale yi jóg nañ te jóg bii ñu jóg dañ ci pare ànd ak suñu yaay suñu papa yi suñu bàjjan yi ak suñu maam yi ba woon Pape Ndiankone màgget moom lu ñuy sàkku ci moom moo ñu ñaanal ñu rek guddi ak bëccëg li mooy ñaanal xale yi ñu gudd fan. donc candidat boobu noonu nga xamante ne moom la ñu fi nekk bëgg a campagnal wax naa ko démb ci suñ benn déclaration ñi fi nekk dañ leen yen li ñu ko di ut keneen ku ñu yen dañu bëgg a yebbeeku ñoo bañ ñoo bañ Karang nag li ma bëgg ngeen bàyyi seen xel mooy lan mooy groupe bi nekk fii bu leen fàtte ay fan ci ginnaaw dañ organiser woon marche pour jooytu jafe-jafe Karang yi maag ñoom ñoo àndoon pour ñu xeex jafe-jafe kaarang tey dañoo jàmb génn dem fekk ci groupe maire am na si ñoo xamante ne nangu ñu génne leen ci vidéo yi dañuy nëbbatu su ko defee ngeen ay seen xel bu ñu ñëwee si seen kër yi ay 5000 francs la ñuy yor 10 000 saako ceeb ne leen jàppale leen Macky Sall jërë ngeen jëf jërëjëf waaw mooy sama waaw ma continuer léegi li ma bëgg wax mooy lan élection yi ñu jëm ñu mayante tuuti rek timis baa ngi si élection yi ñu jëm élection yi élection waa Karang la ak département Foundiougne élection yi du élection Macky Sall ñun amuñ benn xaar ma yàlla ak Macky Sall ñiy xëccoo lañ amal xaar ma yàlla élection yi kenn waru ci tudd sax turu Macky Sall buñ ciy tudd turu Macky Sall dañu a wax rafet li mu def ak lu rafet li mu bëggoon defal réew mi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gox goxaan mënuñ ci dara jàppale wuñ ko si. Karang bokk xam ne ñoo gën a tardé ci biir Sénégal Toubacouta waxi noppi Passy waxi noppi Foundiougne mooy département boo moo gën a tardé ci biir Sénégal jàngkat yi xam nañ bu baax li may wax boo leen jógee Foundiougne ngeen dem Matam. département yu gën a ci Sénégal ñun ci lañ bokk li ñu koy yóbbee nag mooy 5000 yi ñuy naxee nit ñëw jox la 5000 tey yaa am problème mu ndox ay 3 heures du matin ngeen di jóg di rooti ndox loolu wërgu yaram mënu cee am. Kaarang nag li ma mooy élection yi ñu jëm nii am na ñaari député yu ñu tànnoon kenn ki mu ngi tudd Mbaye Jammeh fu njuñ la dëkk keneen ki mu ngi tudd Adama Sylla Passy la dëkk juróomi at. ñoom lañ dénkoon li nga xamante ne ni mooy ëllëgu département bu Foundiougne si seen taxawaay fee ci assemblée nationale. waa Kaarang xamuñ kan mooy Mbaye Diame waa Kaarang xamuñ kan mooy Adama Silla yéen a jëloon seen i carte sànni ko ngir ñooñu falu ñu falu yéen xamoo leen leen ñoom xamuñ leen loolu amul benn njëriñ wolof Njaay nee sama carte sama kaddu ku bokkuta sànni kaddoom na xool ki mu koy dënk na xool waxal man mii jàkkaarloog yéen seen doom laa. seen rakk laa seen jerbaat laa seen sët laa kon maa leen di tàllal loxo di sàkku si yéen ñaan di wut si yéen ndimbal li may ñaan mooy incha allah bu altine waa Kaaral yëpp génn ñu won Cheikh Tidiane Gadio ne dëkk bi moo ko moom ñu won Petit ne dëkk bi ñoo ko moom ñu won képp koo xamante ne mu ngi jóge Dakar ñëw fii que ne waa Kaaral jóg nañ pour jàppale leen ñu dem assemblée nationale. député dafa war a nekk koo xam ne day jege askan bi député dafa war a nekk koo xamante ne dafa am yërmande député dafa war a nekk koo xamante ne amoon am na xam-xam tuuti ci boppam léegi nag askanu Karang li ma jaaxal mooy lan dafa am ñoo xamante ne ñu mayante tuuti askanu Karang li ma jaaxal mooy lan mooy que ne élection bu jubee façon nit bu nekk dina dugg ci dëkk bi li ñuy wut mooy fexe ba nax ñi fi nekk dama ni ñu dégluwante tuuti li ma leen di ñaan ñu dégluwante tuuti bu ñu dem cinq minutes rek ñu pare li ma leen di ñaan mooy élection yi ñu jublu tey la ñu tàmbali suñu meeting ñu ngi ñaan dugg ci si bismillahi rahmaani rahim génn si si alhamdulillahi rabbil alamina waaye li may ñaan képp ku toog tey boo delloo sa koñ sa kër nga dem ci kër yi la jege ak ñi nga dëkkal nga waxtaan ak ñoom ñu ñëw si suñu coalition coalition bi mu ngi tudd Sénégal day dem ñun dañoo bëgg a dem Karang dafa bëgg a dem département bi dafa bëgg a dem kon dañuy dem a dem a dem ba assemblée nationale dañuy dem a dem a dem ba assemblée nationale lii ay kàddu yu ma fi bëggoon a yëkkati la mais bu altine gën a yaatal wax leen naka la li nga xamante ne nii mooy député bu Cheikh Tidiane Gadio ñëwee. dinañ ko jox micro bi dina waxtaan ak financement yi nga xamante ne tàmbali woon nañ ko dama ne ngeen dem préparé wu ngeen organisé wu dinañ leen jàppalewaat ci ay financement te nekkul affaire politique politicienne bi ñuy génnee fukki millions yi ak ñett di ko financé jigéenu Kaarang demuñ élection élection dafa passé ñu def ko te fan yii ñu jub. incha allah ngeen organiser wu dinañ leen jàppale nekkul nag ñoo xamante ne dañuy bàyyi ba soxla leen daw ñëw li may daanelee mooy di sàkku si yéen ñaan li may daanelee mooy bu ëllëgee bu ñu wootee ñëpp daw ñëw seen sërital lañ leen bëgg a indaaleel te su bés ba di ngeen ko gis jërë ngeen jëf may sant di gërëm kilifa yi nga xamante ne ñoo toog fii am na ñu bëri ñu ngi daw parce que asamaan bi mu ngi menacé su ko defee mbir mi ñu yemal ko fii andi képp koo xamante ne na ay soxlaam ñëw wuyu suñu li ñuy wut nag wax dëgg neex yàlla bëgg nañ ngeen sotle ñu ba candidat bi nga xamante ni mooy seen doom muy Abdou Diallo am ndam ci élection yi ñu jëm jërë ngeen jëf ñu leen di sant di leen gërëm.